dang koy chambar nak ba xamne seigne modou mi nak du du du du seigne modou kese rek nak dañ ko duy bam fess tel te liñ ko liñ ne ci mom yàqu ko mu teye ko denc ko lolu ngay netti moom ma ko ñaari xisse nga bolé yow muy ben xam naa son nañ nak ci jotaay bi waye dama bëgg rek ñu jëriñu si ma am naar dafay ñëw boo xam ne dane sëtub si si Seex Sidiya biñ dikkee ma ma ma suñ suñ fal ne maa ngi leen dalal ne leen suba dinaa leen yeewi danaa la jox sa addiye sa jàmb it naa ko jox li ma koy jox. Mm-hmm. ñu koy àllante seen ndaw rek dara amut. ma ne suñ fal moom mais de booba bu ko neexoon bu tibbee suuf si rek mu doon or. Mm-hmm. waaye benn dërëm fanaanu ko te dugg wuti fen te bu sañoon li mu wax du dañ. suñ mutu ñu mën ko ah sama bët xonq na de sama bët xonq na de sama bët xonq na ah mbaa kenn du tax sa bët xonq. waaw doomu Cheikh Sidi yi rek seen maam dañ daan ñëw sëñ bi leen jox addiya mu ñëw fi moom jàmm bi ma war ko jox ñaar fukki junne jox jox jàmm bi fukki junne yóbbu ko te tey laa leen waxoon te dara ñëw rek dara ñëwu fi dara ñëwu fi dara ñëwu ma ne ko mbàkkee ma ma ma jéggalu kon dem ci kër ga te ñu mu ne ah dem la waaye dara fi dara ñëwu fi nee na ma dikk yëkkati loolee mu soxla boolewaat ca leneen dikk jox ko loola ba na ko li nga war a jox naar bi dee ngi waaye lii kii ko andi moo ko tuube yeesale ko pastéefam ak taalibam ci yow nee sëñ Fallu ñokket fëgg tànk yi daal tapi fa tappi bi mu yoroon tappi boobu bi nga xam naan laal na ma ko ne ba ma tëdd ci daal di ko galas bu la neexee bañ defati dara galas galas mooy jalas <laughs> waaw baatub galas ji loolu gën sëñ Fallu daa wax naan ab dëkk boo fa amee mak am fa rak booy nga ne jalas mooy jekki rek toog waaw waaw loolu la sëñ Mudu Musaa ngi fi hmm? bu laaj laaj bu muy yónni bu muy yónni yónni Basiiru fal daan jalas jalas <laughs> ne mu sànni ko tab nag waaye bu la neexee neel jalas bul defati dara waaye maa ngi lay xamal leen de mën ngaa mën a weexal nga mbët soo xam ne day ku ko weexal sa bët du xonk te mukk sëñ mu daan wax ne lu ngeen gis ma dogg ko dogul ko nit damay teg loolu sama kanam rek dal di koy wax automatiquement eh. wax sëñ fan li ñëw daal am la mu mi ngay wax ci suba gi dafa xey ci di addi am ta bet si far lool mu tel lool nak xam magum magum tukkuloor mu xey suba tel nak rek fajar gi mm, suñ fa la xaw a julli ba nopi wér tuuti tëdd non mu jek jeg su nuyoo alaykum ko ko way ko mo mo Modou bak mo ko dafa tel nak suba tel gi nuñ koy nuyo nit dafa tel lool way mu tuyee ah kenn do ko def mak ah kon de noo ngi tup dañu andi sas bi rek million bi ngi dal ko ci wetu noonu <laughs> wetu wetu ngay ganay arrière tout wuti mo tuube ko no ay ardi sas sasu la don andi rek mo ngi mo mu ne tax jot na waaye taxawal waaye ah déedéet taxaw jog jot na waaye jóg jot na ah déedéet jakil nee ma tok mu dal fa mu dal fa tere jim don doon dal dal dal ma koy buux na ci way lekkal fas ci li nga bëgg ah sasu na nga de ko koy andi ah fas ci li nga bëgg kay togal kay yow yow mën ngaa toog ma dal nga addiyee barke man mun ma fas fasal ma rek ci fasal ma rek mu ne ceddo eh, ak mos ak mos daal fam ndab li téyewaat ko ñaan ñaan ñaan li muy ñaan tiwli ne ko ci bisimilah mu lekk ba noppi la ci des mu fab ko yeew ko boobu ne ngodd ci ay yéeram yóbbaale kër kooku mooy Cheikh moom bi Moustapha bi doomi Sëñ Tuubaa yi gërëm nañ ko sët Sëñ Tuubaa yi gërëm nañ ko taalib Sëñ gërëm nañ ko moom mi mu doon jaamu gërëm na ko sallallahu alayhi wa sallam gërëm na kon nag ku mat di fàttaliku ne kenn fàttalikuwut ku mel ne Sëñ Moodu ci ay pas-pasam ci ak taalibeem ci dimbali taalibe yi ci bàyyi fi lu ñëpp mën a wane kon ko jamono dafa laaj ñu jàngataat ko wane ko ba ñëpp roy ci wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala